war a waxtaan ak moom ndax yaakaar na ne depuis combat am ak Tyson 2 ba léegi ñu interview tey mu ne fii lañ koy defee ci kër grand am dañ koy nuyu bàyyi ko mu ne mbokk internet yëpp ñu waxtaan ak moom ci combat bi nga xamante ne ci la waxtaan tamit ci ay potentiel adversaire am yan adversaire la gis ne instant bi combat làmb boole na leen dañ koy nuyu daal bàyyi ko mbokk internet yëpp ñu waxtaan ak moom en général ci làmb comme niñ ko tàmm di defee maa ngi lay nuyu di la ziar. waa Lamine maa ngi lay fay xam ma di ziar waa Lutte TV yëpp parce que. depuis avant combat ba léegi si lañ ko doon waxtaan waaw ba tey jii nii comme mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar xam nga di ziar suma grand bi grand kër Gueye parce que xam ne ba may door ba léegi mu ngi ciy jàpp xama nga tey nag soo ma ñëwee fekk fii nii këram ñu defee fi émission bi kontaan vraiment oui maa lay ziar bu baax a baax. lan ak lan lay représenté ci waaw ah, vraiment wax dëgg yàlla bépp ba ma ko xamee ba léegi. ki ñu wax wan ma moom boole ak moom xam nga dépp ba mu xamee ba léegi chaque suma combat saa yi su may bëree lu mu mu gàtt gàtt wala lu mu dee dee chaque jour dina ma ñëw su soutenir soutien ma woo ma conseil ma xam nga même bu dul dara sa xaalis bu muy jël di ma jox wala trang bu may defal mais daf may woo téléphone di ma conseil xam nga di ma xamal àdduna xam nga xam nga ñun ay booy lañu ay tout tànk lañu waaw foog am ay grand yoo xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw du mën a conseil pour aussi tam ñu ñuy motiver quoi. di la motiver ban genre motivation lay mooy mooy mooy jóge ci moom di ñëw. waaw bëri na bëri na ci àdduna xam aussi itam en dehors làmb sax. xam sax léeg-léeg nekk sax ci wax ci ay làmb. yooyu noonu ci àdduna moo ci ëpp. del def nii del doxalee nii xam nga comme boo grand yooyu boo leen amee xam nga da leen jàpp sa ñaari loxo vraiment. di ko daal lim lay digal soo ko defee même après làmb Franc dina jaar jaar ci yoon bi nga xamante ne du ci résultat. waaw vraiment wax dëgg fa neex yàlla parce ay conseil daal ci àdduna di la xamal lu bari xam nga ñoom ñoo ko ñoo la jër ci àdduna te nit ku la jër ci àdduna moom fa nga koy déglu waaw loolu la ko dina ñëwaat ci moom dina ñëwaat ci seen ci diggante comme ni ma ko waxee rek comme 100 pour cent làmb la sa combat ak Tyson 2 da nga ko jël gars ni test la pour Franc vrai test la. combat bi ni mu déroulé sax am na ñu ne ah moo ko ëpp doole mais baat boobu soo ko doon dégg lan la la doon def avant combat. waaw xam nga lamb moom. dafa baaxoo làmb bu taxawee rek lu ne di ko dégg wax bu ne di ko dégg mais ñun loolu déranger wuñu parce que ñun ñoo opté nekk athlète ñoo opté aussi tam nekk mbër xam nga wax yooyu bu ma ko déggee am na wax yoo bu ma ko déggee damay gën a motivé wu. xam nga comme par exemple ngay dem fii ñëpp ne la bul dem fii du baax wala yooyu noonu yow gëmal li nga li nga gëm. xam ne boo fi demee carrément fi day baax. ma nekk nag dëkk dëkk boo xam ne parcelle dañoo bëgg làmb comprendre nga fu ma tourné ñu ne ma mbër gëm ko nee ci day baax may wo dégg wax yooyu xam nga ñu may encouragé xam nga mooy mooy loolu daal su ma tëddee ba yenn heures yi sax damay tiit sax ay nelaw ne xaaral ma jug dem entraînement ji parce que làmb ji ndam rek moo ci moo ci war war. est-ce que gëmoon nga ne adversaire de taille nga am parce que jaaroon na parcelle am nu mu fa def daan na garga de daan na góor a soog mais yow ci say say seen i face to face doonoo woon ni maanaam Tyson 2 adversaire de taille la loolu da ko doon def. pour dox ci maayinam wala da nga gëmoon ni Tyson 2 nekkul adversaire de taille. Lamine man duma dox ci maayinu kenn man tolluwuma fu may doxee ci maayin nit man damay ñëw ñu préparé ma ak li ma préparé ak sama ngëm-ngëm ak sama xam-xam ma ñëw appliquer loolu dem sama yoon mais pas ma ne fi naan damay dox ci maayin nit li mu leen waxoon leen la man xale laa sama wax jarul muy bari man jëf moo war a ëpp ci man. te xam nga gars yi tamit ñoo ci nekkoon xam nga rek nit aussi tamit dina am nit yoo xam dañu lay yéene de trop ñoom xam ma rek comprendre woon mais man mi di athlète bi man xam naa li ma daj su ma ko tegee waa ji du taxaw. Mm-hmm. si. kon yow yow sa kanam daal war rëyul woon quoi. non xëy na peut-être itam mun na rëyoon xam nga dina rey tamit ñi nekk ci ginnaaw wala ak ñeneen ak ñi ma jege mais yéene la woon rek. Mm-hmm. xam ma mais xam naa ni bu arbitre sifflé man ma def ko li ma ko bëgg a def dem sama yoon. Mm-hmm. ñu bari dañ doon wax ni jàppante bi sax di mais xeex bi amoo ci ñu ñëw si contraire nga ñëw dëgg sa bopp ci xeex bi ba dóor ko mu daanu noonu nga eggale ko ma dóor mu daanu mais xam nga sama course muy course jamono muy ba France maa ngi koy nuyu bu baax baax xam nga moom ñëw na fii xam nga ñëw jàppale ma bu baax ci komba bi ñëw jàppale ma ci côté xeex bi lépp. ne ma Franc kii loxo bu ko dalee waaw parce que liggéey nañ ko quoi yàgg na xam nga ñëwee daf may ne waaj ñi lay taxawee ñi nga war a defee pour mun ko am ci lii xam nga te aussi tam moom tam mu ñëwoon pour bëgg ma humilier ci combat bi xam nga moo tax nag après ak ñoom conseil ñu ma conseil aussi tamit ma ñëw appliqué yàlla jàppale ñu may ñu ndam. xeex mu la doy. erreur na ci wala ci. erreur am na ci. dara amu ci que après ni ma màmmee ci ko mais man dama ko gis lépp xool naa ko gis naa ko parce que coup boobu da ko dal ñu bëri dañoo fa ne non dafa kii nii coup yooyu moo ko doggali noonu non dama ko dóor direct am na bu muy dóor ma faxas ko ba pare remise ko coup boobu da ko dal boo xoolee coup bu mu jëlee coup boobu mu ngi naan nii après ci laa profité nag sànni ko ay crochet. Mm-hmm. Mm-hmm. yaram tàng na trop bi nga dugg si mais Franc dañ naan dafa am gàllaaj te lu muy ànd tamit loolu loolu beneen question la fecc bi bari na ambiance bi keroog fugu de jeunesse bi li nga doon dégager ci énergie est-ce que est-ce que est-ce que ce que loolu confiance bu ëpp la woon wala ay xabtal la woon. non xabtal fan mais ñun Lamine ñun làmb ñu ci ñëwee ñun fu mu toll nii instant bi ñun bu ñëwee ci làmb ñun ñoo war a def lépp parce que ñun ñoo ay xale ñun ñoo war a bëre ñun ñoo war a daan ñun ñoo war a bàqu ñoo ñoo war a def lépp parce que ñun ñoo ay xale. ëllëgu làmb ñun la comprendre nga comme ñun loolu lañu loolu la ñu war a ñëw appliquer ko dem suñu yoon. comme ni ma ko waxee bokk nga ci mbir yi ñu yéen ëpp gàllaaj instant bi te benn saak ngay andi fan bàyyi affaire bi. amaana loolu la gaari yi si veille combat. <laughs> loolu la gaari yi gis rek comme ay benn saak yooyu ay ñaari saak mooy li ma doon wax keroog bës rek ma ne ko mbër indi na fi camion mystique ñëw na daanu xam nga dëgg la nag ci làmb la bokk. mais ñun lu ñu war a indi rek la ñuy indi ci làmb ak loo xam ne moom la ñu nit yi di jox waaw ak aussi tamit suñu ñaani waajur ak ak ñu ñuy ñaanal daal ñëpp ñu ñu ñoo xam ne ñu ngi ñuy ñaanal mm-hmm. waaw affaire yi du foofu mais ñun dañuy entraîner géej gi matin soir ñu ngi fa saal yi tamit aussi boo demee rek ñu fay fekk mm-hmm. waaw ñun loolu ñu jiital te loolu ñu gëm mm-hmm. waaw ku liggéey mooy am ku liggéeyul doo am man loolu laa gëm nag. Bébé Saloum daf ko gën sa combat ak Bébé mu jaroon noonu la nga dagg bee dem États-Unis def ay weer waajal combat bi sa diggante États-Unis de nga toog bi foofu la taxawee. doo mën a dem loolu quoi moo taxoon ñu toog fii préparé wu te préparé wu fii ak fii. lépp benn la Lamine waaye. non foofu xëy na tamit foofu moo gën a tranquille di nga mën a récupérer normal quoi récupération bu ngay soxla dëgg di ko am. Mm. parce boo demee ñu teg la yenn coono yi fay soxla nga récupérer bu baax a baax quoi. Mm. Mm-hmm. moom. moo daa ko bëri. loolu du ñàkkul ne doon nga dégg. non non même Lamine bu ñu bëri woon sax xam nga. xëy na gars yi dinañ am lu leen bett affaire dina gën a yéeme quoi mais comme xëy na suñu borom foofu la ko jeexalee mooy lool mais ñoom pour te dire comme moom lu ñu doon wax man dama ko waxoon signature bi mu ne ma yow ñemewoo xeex man mu ne ko kon bàyyi ba bés ba xam nga te ñu bëri foog ñu man dinaa def ak moom noonu dinaa àgg ak moom noonu moo tax làmb nekkul ay kii lii la lii yow tey ji Lamine ponkal mu jëmm puy posé cent kilo kan mooy taxaw man di ma dóor te man du ma fayu man parcelle laa dëkk nag xam ne grand Babacar mu ngi sa ginnaaw looy dox di ragal non non du ragal man foo foo foo ko bëggee kay fu mu gën a foo bëggee foo bëggee mu sedd mu sedd boo bëggee mu tàng mu tàng yow yaay xool waaw. Ah, loolu kay force maa ngi gërëm Sénégal yëpp di di leen nuyu di leen sant aussi di gërëm Franc parce Franc nag moom je crois que suñu suñu mbër la te loolu du tey je crois comme li nga wax sànq euh, wan sow moo la indil fekk yàlla def comme ñun dañuy politique Parcelles Assainies Amadou Ba ñëw di jàppale ñëpp. loolu tey moo tax moo indiloo ba fii parce que lépp lu ñu def ñun gannaaw Amadou Ba moo ne ci gannaaw il loolu leer parce que moom mooy ñooy politique di ko jàppale maintenant euh, sportif yëpp doo mbër yëpp pratiquement dañuy ñëw vers ñun maintenant ku ci bëri aussi lu ñu mën jàppale dañu koy def loolu la def di ko def ba yàlla dimbal ñu ko xam ne mooy suñ suñ tenoor Modou Lo dem nekk roi des arènes loolu mu ngi koy sant yàlla bu baax a baax te bu ngeen ci gërëm aussi ngeen gërëm ci amul Ba mais Franc moom kaaw mooy euh, gëm naa ni suba dee nekk champion ci làmb ji parce que waaw parce que am na taxawaay bi am na fayda bi su amee combat yàlla mi ma tim xam dama naan Franc day daan boo xam nga am na mbër yoo xam ne duñu jaay seen combat moom buy bëri da ngay sentir kii afam lu ko tax a jóg pour am ndam parce que làmb ji nag liggéey la te booy liggéey dana ci def fulla ak fayda ak jom parce que mu mbëri yëpp léegi dañuy ay VIP lañu làmb ji leen ko may moom dafa war a nekk VIP comme ñeneen ñi te gëm naa dana ko nekk. parce que non lu koy may loolu mooy fi mu teg tànkam bañ koo teggi entraîné te boppam xam ni làmb ji liggéey la làmb ji liggéey la euh, xam ni dafa am xool ci ñi nga xam ne dañuy réussir làmb ji topp seen tànk parce que xam naa ne moom loo xam naa leen nu ñu mel donc lépp ndef ñoom ñoo koy defandoo ba mu fekk bokkuñu écurie loolu de am lu mu tekki na li daal mais lu ci ëpp solo daal mooy lépp lu ñu def ci làmb ji moom gëm naa ni moom am na ci wàll parce que bañ koy jàppale ba léegi ndam lañ ci am ñu naan yàlla nag mu continuer ba pare di te te am naa yàq ni bu Modou paree moom la koy jox maa li loolu moom gëm naa ko moom su ma. non diisul non diisul diisul non diisul xam nga Modou ñëpp a waxoon ni euh, dafa tuuti. an mu day non daal bu paree sa waay jox te Franc moom ñun am lu Bala moom kooku mu am lu wax parce que premier combat ba tey ñu ne moom la. mais Franc ñu ngi hmm? non ñooñu Franc moo leen moo leen mën. ñooñu franc moo leen mën. non dama ni ñooñu franc moo mën. non dama ni ma daal li ma gëm mooy franc moom làmb ji à part ñi mu bokkal écurie yi keneen ku ñu ko jox war na mën a bëre yow ñëpp laa wax. keneen ku ko jox war na mën a bëre yow ñëpp laa xam ñëpp laa wax parce que euh, mu ngi bëgg yàgg ci làmb ji aussi walla donc euh, le fait que mu jóg bàyyi foofu ñëw ba si ñun fii defee émission am moo la wan moo la wan am na foofu ñu teg ñun tam loolu xam na nga daan ci bàyyi xel bu baax a baax waaw vraiment fi ñu nekkoon dem di ko jàppale ba tey je ko que loolu moom du changé quoi bu yokkul du wàññeeku incha allah taala bu soobee yàlla. waaye keroog bi nga daanee Lac nga laaj mais yow ak Lac de Guiers est-ce que làmb boole na leen est-ce de l'État ma téye ko ko ci benn at bi Lac lan la fi def. mu tëj joxee du ma të. lu leer laa lay wax dama am ay bagages yu bees tàq yu ma denc pour Lac de la. néew ma. am daan wax de tër ko yomb na waaye ren ko jafe na bu nekkee yaa ngi dem bi fi ko gas. non dinaa ko dinaa ko rendi la deger ñaata yoon mu fii muy fii xam nga champion la nag jox nañ ko wàcc wàccuwaayam jox nañ ko cëram lépp mais dañu war a ñoom dañ fi fekkoon seen i grand xam nga moom mu ngi nii bëri na moo gi yax ya yigi ni mm. jàpp yax ya daan ko léegi yéex ya dem na. mais bi mu jotee. waaw mais mais mais yéex ya bu ko neexoon moo du ko jël parce que lu mu def ci làmb moom dafa yéex ya lu mu def la dëgg defu ko Lamine amaguma taas de na ma jël moo gën. sinon bu mu taxal la. bu ñu ba ci kanam day gën a métti rek. moo tax nga daan rek ni Lac de Guiers wala Eumeu Sène. man man man dama war a bëri ñoom man sama yaram man ñoom lay laaj. laaj fu toll nii surtout Lac de Guiers Lac de ma gis kenn daanaka ko moom bu ñëwee dama koy bu ñëwee laa dama lay wax avant bu bu tooxaa dama lay wax fii laay dem ak moom fii ak fii laay jaar ak moom. mooy gars yi dañoo jaar ak moom fépp Lac de Guiers amul fu mu bëri jaarul ak moom sax daal. moom loolu moom xam maa ngi di seetaan comme waaye maa ngi di seetaan maa ngi koy gis bu ñëwoon ma la fekk fii fu may jaar kay dama fay jaar man du ma négocier de non Ah, waaw. lan moo taxoon nga boole ci ëmb li woon Tyson 2. ko dégg rek xam nga mu taxaw ne combat bi lépp la ci def yooyu noonu xam nga combat bi ñu koy préparé mu doon ko xam nga ma ko man yooyu man sama moyen. mais loolu c'est parce que ñoom papa soo ngi woon sa ginnaaw ñoom. Ah, waaw mais attends mais man xam nga ni Lamine am na yoo xam ne boo koy wax booy xam na dal xool nu mu jekkee rek nga wax ko moo gën mais yooyu am na yoo xam ne moom moo def gaynde ci combat bi. Eumeu Sène si su ba mu taxee ci géew bi noonu maa ngi koy yuux naan ko eh muy reetaan ma ne ko yaa ci des xam moom taxaw na dugg na ba si biir biir voilà. ok loolu am na solo mais am na combat boo xamante ne nag mënumaa toog ak yow te dama la ko laaj sa diggante Gris 2 amateur yi nag nee nañ nag da ngay làmbatoo di wiiri wiiri rek mais loolu mooy combat bi yéen ñaar. chaque jour combat bu ñëwee ñu ne lii mooy combat bi Gris 2 champion la comprendre nga suñu nawla la. xam nga ñun mu Gris 2 duñ bañuñu ko mais man nit ku ne am na choix am comprendre nga man Lac de laa bëgg bëreel moom laa bëgg bëreel tey moom laa bëgg bëreel suba Gaston Mbengue nee na bu d'accordé mu tëgg combat bi Makan doomu gason bi wax na ma ko. woo nañ la yow est-ce que. bu Lac de mu tëgg combat bi. laa woon ne la toog naa ak ñoom ñu waxtaan stade. dina ma buub d'accord léegi ñu tëg ko en direct Sénégal ñëpp dégg nañ ko. mais amateurs li ñu wax wax mooy sa diggante ak Gris. dëgg la amateurs ñoom ñoom ñooy làmb xam nga ma la mais nañ wax nañ nañ jéem indi seen xel ci Lac de parce que Lac de Guiers kenn gën nañ koo daan wala wala bu est daan nañ ko fi. daan nañ ko ëmm seen jàpp na tànk bi di ko contesté mu loo daan. ñu ngi waaw ñu ngi naan leer wu xam nga yooyu yëpp comprendre nga dama koy daan ba mu tëdd ba mu def nii Lamine Gueye daana sa morom Gris 2 sa morom. waaw loolu dëgg la loolu kenn waxatu ko déggoo li ma la wax la Gris 2 champion la mais man sama choix mooy Lac de Guiers fu mu toll nii Lac de Guiers toog su ma duggee ci YouTube bi de Guiers laay xool muy bëree hmm? waaw. ngay jàng. moom tamit nee na moom bëreeg yow dafa mel ni gënalu ko yéen ñaar dafa mel ni da di bañ man bañuma kenn mën nga bañ diw bu ëllëgee nga bëgg a bëri moom comprendre nga mu bañ. mais man lag laa bëgg a bëreel champion la xam nga te jàmbaar la aussi man dama ko bëgg boole sama kon moom na xaar. non Gris moom fu mu toll nii day xaar moom si waaw. Ah. Reug Reug Gouye Gui foofu tamit war nga fa mën am adversaire xam naa ne kii daan sax moom danaan du la jël mais kii daan foofu. ci man nañ ma nañ man ku daan rek laa bëgg de ku fu mu toll ni ku ne ci kaw te Lac de Guiers xam lu tax mu gën a neex Lamine loo xam luy problème bi maam Lac de Guiers moom ci victoire la jógee fu mu toll ni moo ko émotion te mënul fu mu toll nii ay moroom yëpp ñu am combat man su doon maay dama damay reculer tuuti jël ma mu jël ma xam nga fu la ñaan Lac de Guiers dina dina kiiwaat boola du yaa ma gën a xam ñu neexal ko ah. su la daanee def non du du du niil man du ma niil de ah. déedéet. du ma bëre fajar tamit man kay muy leer rek nay gaaw. am na solo fi may jaaxle ak yow combat bi ci ban écurie nga ko bëree parcelle mbooloo wala jàmbaar. en fait combat bi ci licence wu kii nu sax licence wu parcelle mbooloo laa ko bëree mais mooy li ma waxoon rek xam nga parcelle mbooloo fa laa nekkoon comprendre nga mais àdduna loo gis ay waxtaan de see am comprendre nga man boo demee nga laaj la ñun ñëpp. man defuma ci ma sàmba lii defuma ci ma demba lii mais nit nag am na ay choix am na ay principe comme comprendre nga àdduna lépp teraanga la dem naa waxtaan ak ñoom xam nga ñu ne ma dañuy cognance fii nii yooyu noonu ma ne ok anyway amul problème. dem waxtaan génne équipe. waaw man sama ménagère as doo amul seede baaxul ñu ne ma léegi lii léegi def na ni dañ may cognance ci ay problème moo leen la xam nga mais peut-être comme instant bi nii comme saison bi dugg si woon na gaa ngi bëre léegi foofu ay wax xaju fi woon. dafa xaj négocier ba mu jeex mais ci turu jàmbaar laa demee après foofu la man foofu laa préparé woo comprendre nga bu fekkee nag dafa am leen loo xam dañ ma ko jàppal wala man maa ngi jéggalu quoi. lan moo la ci écrit ba nga bëgg a fàcce. mais ne am nga say principe am nga say choix xam nga loolu la man am naa samay principe am naa samay am na def naa sama choix maa xam tamit lu tax aussi ma bëgg a dem. mais ñoom tamit nee ñoom ñoo la formé de A à ba affaire yi sotte rek nga bëgg a xiiwal leen. am na yeneen mbër yu fa nekkoon am na ñu leen formé ba ñëw tey ji parce que àdduna noonu la rek dem léeg-léeg sa kër damay maay jégalu ci kàddu gi sa kër kilifa di nga fa nekk nga dem ba ci biir di nga dem ut appartement wala nga dem ut foo dëkk loolu yëpp mais bu fekkoon sax damaa génn dem ay jàmm gën ak wala Kër Masaar nga mën a wax mais lépp ci parcelle la te ñun drapeau parcelle la ñu porté fu ñu mënti dem parcelle la. dañu ne kii booy parcelle la comme mbokk loolu defe naa fierté la ndam la aussi comme mm-hmm. comprendre nga demuñu Pikine géej Guédiawaye mm-hmm. parcelle lañ nekk mm-hmm. si. mais nekkul xeebu xeeb xeeb xam-xamu ñi la tàgg. jamais jamais de la vie jamais de la vie man man ku ma xam xam ma ku ma xam nii nga ma xamee naturel man du ma tricher du tricher wax dëgg fa neex yàlla mais nag amul problème quoi ñu ngi dégg ay détails xam ma. mais yàlla nañu yàlla àtte quoi. mais mais loolu tamit règlement CNG moo ko wax booy jógee ci écurie yi foog nga fay li nga xamante ne tey moom nga war a fay sinon di nga toog un an doo na la ko yow. attends boobu ne boobu nekkoon fi moom kii ni woon règlement yooyu instant bi nekkatu fi CNG boobu nekku fi. waaw terewul règlement 4 appuis ba léegi 4 appuis. waaw mais defal nank 4 appuis ba léegi 4 appuis la hmm. mais réglement yooyu nañ dem la xam nga 4 sax ci bëre la mais lii en door la. mais nañ dem laajte ba xam ba xam loolu mu ngi fonctionné ba léegi muy noonu. man dinaa ko gëstul sama bopp. allah defal loolu. kontaan naa ci yow looy tàggatoo ak lan ngay mujjee wax. waaw grand bi moom xanaa di ko gërëm bu baax di ko sant parce que mooy li ma la waxoon rek commencement bi xam nga grand bi fu ñu nekk daf ñuy woo di ñu nemmeeku du ñu jàppale xam nga conseil aussi tamit xam nga maa koy sant bu baax di ko gërëm. aussi tamit Abdou Sow booyam la maa koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu waa parcelle 1 ba 26 di nuy sama waa kër sama sama famille maa ngi leen nuyu bu baax parce que gis naa ni may taxawee ni ñu may jàppale sama mbokku njaago yi maa ngi leen nuyu sama mbokku séeréer aussi xam nga di nuyu waa Joal Fadiouth su mel ñoom Edouard Dimle Jox ñoom Jean Ñilaan ñoom Aziz ak Dadi xam nga ak soxnam ay ñoom Modou Jox waa Daara ji yëpp maa ngi leen nuyu waaye maa ngi nuyu daal waa Njong ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu. vraiment kontaan naa ci ñoom baax a baax ay Paul Ndiaye aussi tam maa leen nuyu di nuyu ki nga xam ne moom laa àndal fii muy def si ko business ak baaba jàlloo xam nga di nuyu Mara tamit su may bëri ji moom mooy yóbbu ak otam moom sëñ Saliou ak waa dooleel franc ànd dooleel franc ku ci di ci jël nuyoo bi Matar Lo ak grand Alassane ak ni grand ñoom Bamba ñoom Maam Mbaye ñëpp maa ngi leen ziar Bamba borom xel ko bu doom nday taf si ko maa ngi lay ziar encore fois di xam ay ñoom père boole sama booy ñoom Ahmed pro oto lay pour oto xam nga mënuñu bañ a nuyu te maam père ba waaw suñu président suñu papa suñu conseil suñu lépp su ma nuyee maam père ba rek defe naa nuy naa ñëpp xam ma ak doomam aussi Mansour Ba xam nga le grand papa Sow maa ngi koy aussi ziar ak loolu roi des arènes Modou Xarañ Lo xam nga maa leen ziar bu baax a baax ak Goro Sock Garga 2 ma fiyaa parcelle bi yëpp. di nuyu di nuyu waa mbëru parcelle yëpp bépp mbër bu ci am combat yàlla na suñu borom may ndam grand Zem Kantam aussi maa ngi koy nuyu grand Seydou Ba aussi xam nga parce que ak waa kër Amadou Ba tam maa ngi lay nuyu bu baax parce que sama bi ñoom rek laa gis parce que rëy na trop waaye ñoom kese laa gis ñoo ñëw soutenir ma xam nga ci ay politiciens ñoo ñëw soutenir ma jël seen kii bi oto bi am rajo bi baafuli ñu ñëw def ko foofu koñ ba yëpp jëngal ko xam nga di nuy waa parcelle surtout sama waa koñ waaye Intercept parcelle 1 ba 26. Yves Ndiago or maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaye di ziar ñëpp aussi tamit sama benn booy bu nekk France moo Mohamed si maa ngi koy nuyu ak gars yi ne foofu yëpp mafia bi waaw nuyu naa leen bu baax di leen ziar sama benn njaatige bu nekk Washington ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax waaye Lamine maa ngi nuyu ñëpp sama waa kër tamit aussi du ma leen bàyyi xam nga maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp aussi tamit yow tamit di la ziar waaw di la wax nga gën a góorgóorlu yaa ngi kii